askan wi euh, Cheikh na Cheikh Saad Bou ñu ngi lay ziar bu baax a baax. sant bu baax a baax maa ngi lay delloo ziar di la nuyu di nuyu ñi leen di seetaan euh, di ñaan yàlla lépp luñ fi taataan mu jëriñ askan wi. alors euh, moom la ñu fas yéene euh, sekkal bile waxtaan waxtaanee actualité waaye laataa ñuy sóobu ci euh, langue politique bi ak yenn ci ay sujet d'actualité dañuy dellusiwaat ci mhm. sa carrière fële nga xamante ne ni moom moo di police parce que pour rappel nekk nga fa ay at yu bare bari doon servir la police servir également la nation sénégalaise ñu gis ni nekkoon nga fa sax njiit euh, direction bi di actrice euh, ndax mën nga wat ci euh, sa jaax-jaax fofu ci police ci yenn ci ay poste de responsabilité liñ la yiñ denk ak lan motax nga jóge fofu lan mo la fa ah merci beaucoup su may wax sama carrière ça va prendre du temps. Absolument. parce que je n'ai pas fait dix ans. j'ai mm-hmm. fait 40 ans de carrière. 40 ans c'est pas deux jours bi ngay jógee école de police ak bi ngay génn police su fekkee noonu la mais je m'en vais seulement vous dire que effectivement commissaire de police là commissaire de police bu police à l'âge de 20 ans j'ai eu le temps de faire les grands métiers de la police à savoir la sécurité publique à savoir la police judiciaire et les sections de grande criminalité comme le li ma gis ci sama carrière effectivement profit bi ma jox dafa xaw melni genre badu mon lepp yoyu ah oui waaw ba noppi nga am une spécialité forte en police judiciaire. donc mhm. un commissaire de police très respecté parce que bari woon naa pexe ci liguey bi. Mhm. mais tamit fi ma gënon mën moo ma yóbbu au critis mooy grande criminalité criminalité transfrontalière. Mhm. lolu vraiment amon na ci këfin moo ma au critis mooy diriger. li nga xam ni moom la ñu tuddee béréb bi nga xam ni fa la ñuy xeexee lépp lu jëm ci Sénébar muy drogue yi ak yépp yi nga xam ni dafa méngoo ak ay drogue mhm. ci Sénégal ak ci sunu diggante ak yeneen réew yi nga xam ni ñoo ñu wër ak réew yi nga xam ni ñu. Mhm. parce que loolu yëpp foofu lañ koy basé donc j'ai eu affaire euh, de bon moment là-bas mhm. def naa fa li nga xam ni moom laa fa waroon def ba bi ma fay jógee lu ma euh, akhal nak c'est que jogé n'a fait depuis très longtemps mais ça me poursuit daf may top ba léegi. Hmm. parce que très souvent suma taxawé quand ci suis journaliste toujours c'est la même question qui revient. bon nak nga jogé au Critis. moi je dis que c'est un débat très très très simple. Mhm. très simple man yàlla daf ma bindee ni dara fëkkuma naturellement la damay wax sen dama naïf ba li nit ñi xol ko damay xol tout droit devant moi. Mhm. ñu am fa situation bi nga xam ni nag drogue ak xaalis ñoo ànd bi ma ñëwee au critis très rapidement j'ai compris que ni loolu réalité la fi sama prédécesseur da doon jaay drogue waaw ma dem wax ko ministre bi ni ko kii kii fi jóge kat day jaay da daan jaay lan mooy jaay drogue bi mooy drogue bi nga xam dañ koy stocké au critis mhm. li nga xam ni moom la nu jàpp fa lañ koy denc n'est-ce en attendant que mois de juin ñëw ñu dem lakki ka mm, diggante bi ñu koy teyee foofu ba mois de juin di ñëw ñu koy dem lakki dañ ci doon am pexe ñoom doon lëkkaloo woon ak ay délinquants ay nigériens ak ay sénégalais yi nga xam ne dañ leen koy joxaat joxaat bi dafa compliqué parce que dañuy refaire conditionnement bi sa veut dire que suñu ñëwee indi ay boulettes boulettes yooyu da nga leen koy jox ñoom ñu joxaat la yeneen boulettes yi nga xam ni li ci nekk du drogue pëndëx rek la ñoom ñu yóbbu bu baax bi dem defar ko xaalis. jox la xaalis nga dem. man bi ma ñëwee rek lan ma ni eh léegi yow yaay patron bi yaa fi nekk. Mhm. moi j'ai pensé que mënu ma jouer loolu parce que li jig gaañu jiguma mhm. man Keita laa sant fondamentalement di taalibe xaadir donc am na xam dama ciy veiller tout le temps li jig gaañu daal jiguma bugg xaalis du ma dugal ci yéen ma daw dama wax ko ministre bi. mais ñu toog ubbi enquête man ak ministre bi ak benn colonelu gendarmerie. ñu toog ba au mois de mai nga xam ni tuuti fan moo ci des on a nommé celui-là ñu nommé que directeur général de police te moom moo nekkoon objet wu enquête bi ma doon def ba ma ubbi woon ay topp ay nit yi nga xam ni bokk na ci gënoon fees benn Nigérien bu ñuy wax Austin. mu ubbi enquête bi toll ba foofu benn ngoon rek ma dégg ñu ne ma eh sa waa ji de mooy directeur police léegi. ma dem suis ministre bi tourner ci Cheikhou Cissé va dire au ministre que son coup ne passera pas ma trafiquant de drogue un ma c'est quoi ça suis le dossier est sur la table du ministre il le sait comment il a fait pour le faire nommer hop le ministre a été informé dans la nuit le lendemain c'était le scandale lui ou les de son proche de, de, de de son entourage mm. ont inondé le Sénégal de nous nommer Ablaye Niang commissaire Keita maire dafa jaloux man leen jaloux. parallèlement ils ont tenté de négocier avec moi la passe pour que je laisse tomber cela ça veut dire que nous avons une capacité de nuisance mhm. Bon noppi pour bës pour mon ma Fait que nous avons décidé de ne pas bu parce que j'avais avisé beaucoup de mes copains Je mhm. naa allé ni affaire bi dama koy te du parce que sous dellu see man damay danou. de fil à aiguille on est allé dans ça ma bañ dem japp nigérien bi yobou ko kasso finalement il a été condamné à dix ans de prison mais ministre bi comme néna dama ko togn dama yaradiko yobou mo conseil d'enquête ñu dàq en résumé lii il y a pas autre chose maintenant je me plais à rappeler ce que certaines personnes fan yi rek commencé de me dire mhm. mais comment ça se fait que yow ngay tudd pendant dix ans ay nit yi nga xam ni mhm. kenn mësul ñu ŋaan ci jusqu'à présent muy ñaar muy mhm. Ablaye ñaar du général Pathé qui di nga ministre parce que le président de la république mais puisqu'il fallait gérer sur la sécurité de mon pays éviter des scandales qui feraient passer mon pays comme étant un état narcotrafiquant mhm. j'ai assumé

Non, il n'y a pas de ça là, tout ça, c'est des histoires autour de ça. J'ai été radié, mis à la retraite. D'accord. Donc, dans les termes administratifs, non, nous, là, mhm. on arrête mon activité mhm. et on me met à la retraite. D'accord. retraite, normalement, je vis comme tous les autres retraités, sous RUDW, sous ma feuille ma casse. D'accord. Mais moi, chaque mois, on me paye ma pension et je rentre chez moi. Alors, après le euh, euh, scandale, bobo nono, tu as gagné la police, tu euh, as politique, donc créé un mouvement. Euh, mouvement bi nga jëk créé euh, mu euh, avant dolel askan wi. waaw mouvement sam suñu Sénégal wala mouvement ah dooleel askan wi lan motax nga taxawal justement mouvement bobu muy force bi nga xamante ne ni moom nga jité ak kañ nga ko taxawal. bon avant ma ñëw foofu ah dama am parcours bu compliqué parce que je ne suis pas un prétentieux. Mm-hmm. nit pour normal laa nga xam ne lu mu mësut def danaan mësuma ko def luma xamul xawuma ko mhm. commissaire de police day xam politique parce que da ngay accompagner autorité yi mhm. da nga leen di xelal sax mais position bu position commissaire de police la bu nek ci géopolitique bi mhm. en tant que fonctionnaire di am ay mission yi nga xam da kay bolé ci lolu buma génné légui léegi décidé woon bu yàgg damay def politique suma ma damay top tabaxal sama bop ay jaar-jaar. d'accord je ne suis pas allé mettre en place un mouvement. je suis allé and ak nit ñi ko laal fii ci Sénégal ak ku koo ci mënti laal rek. Mhm. soo laalee fukk xamal juróom-ñett yi toog na ak ñoom waxtaan wala ànd na ak ñoom def dara. d'accord ma koy def des années des années durant Ablaye Wade toog na ak moom Idrissa Seck toog na ak moom Abdoul Mbaye toog na ak moom Khalifa Sall toog na ak moom euh, Ousmane Sonko daw nañu pendant deux ans et wala deux ans et quelques ensemble ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen j'ai fait beaucoup de choses. Mhm. avant au bout du parcours ci situation bi ni mu demee ni ba ñu dem ba président Macky Sall jël réew mi ba mu dem ba mu def douze mois 12 ans ba mu dem ba mu porte perte réew mi actuellement ñu nekk situation ñu vivre expérience yooyu yëpp ci la ñu dajale ay nit yi nga xam ne dañu bokk conviction ci ni notre pays est en danger fii réew mi tab bi tey y a pas de raison que ay patriote nekk fi mhm. te duñu réagir te duñu tàggu kenn nous avons choisir la voie la plus difficile c'est nous opposer quand personne n'était sur le terrain loolu mo indi force dooleel askan parce que askan dafa amone lu mu laaj. Mhm. ci ay nit taxawal ko fofu jaaxle na xamul fumu mu jëm parce que ñi nax nañ ko ba jël nguur gi ñi nax ko ba jël nguur gi ñu ngi bugg forcer nit ci loolu te benen parti bi nga xamni ñom ñoom ñoo perte nguur gi danoo toog réer ñom tamit ñun ñi dal taxaw force dooleel askan wi du nous n'allons pas laisser tomber nous allons nous mettre à cet endroit loolu mooy raison bi indi force dooleel l'Afghanistan, wi. Mhm. di agir avec tout ce que ça comprend comme conséquence. et responsabilité D'accord. accord euh, dañuy peut-être ci euh, bras de fer bi nga xamante ne nii moom euh, exécutif bi ak législatif bi gis nañu li nga xamante assemblée nationale quand le président de la république a manifesté sa volonté de dissoudre ñaar ci ay institutions qui ont jàpp ni euh, wa assemblée nationale dal di ko koy lànkal la majorité. xam nga da nga tàmbee ci fi nga xam ni euh, ñom fa la nu bugg a des institutions budgétivores. d'accord ñi sen parcours ak liñ fi jotta def daf leen disqualifier à parler de ça parce que avant ñu ag fofu dig nañu je crois que ay 12 dig yi ma calculer ben bobu lañ ci jéem laal ni c'est budgétivore avant lolu, lu nek ko depuis ni à la limite la rupture notion rupture depuis lu nu wax ci comment dirais-je encore nous supprimer ay euh, caisse noire ba qualifier que de haram et autre chose et autre chose mhm. avec tout ce qu'il y a ici de choses yi nga xamni promettre nañ ka askan wi ne bobu lañ ci bëgg tenir sous prétexte budget d'ivoire moi, je ne crois pas à ça. Je crois simplement que, dans nous Diakasso, ils se sont entremêlés les pédales. Pédales, tu dis que depuis nous sommes à force d'échecs, d'échecs, d'échecs, d'échecs, nous sommes la situation, ça les contraint à aller vers une situation nouvelle qui passerait peut-être par des élections, nous avons arguments. Parce que l'infime ne défie respecter la constitution,